Euh, maa ngi tudd Sophie Traoré di présidente fondatrice de l'association Sénégal Vert bu Sénégal Vert dafa nekk association bi nga xam ne day yëngatu lépp li nga xam ne day protéger environnement bi euh, ñuy def li nga xam ne moom mooy euh, recyclage set setal ay formation ak ay reboisement partout au Sénégal bu delloo ci bis bi tey lu ñuy njëkkee rek dañuy saluer initiative bi mu nekk journée bi nga xam ne journée bu am importance ci fi nga xam ne moom mooy Kaolack ak ci Sénégal li ko wër lépp parce que booy xool temps yi réew mi tàng na trop pollution beeg yooyu yëpp euh, ñu ñëw tey ci journée bi def li nga xam ne moom mooy recyclage c'est-à-dire jël objet yi nga xam ni mooy pneu yi nuñ ko miinee mooy ñi nga xam ne am nañ ay ñaxtu ñoo ngi ñaxtu ci yenn yi mer nañ euh, dañuy jël taal. Euh, ñi nga xam ni mooy xale yi dañ ciy jël di ko fawee léegi ñu ne pourquoi pas ñu jël ko jox une deuxième vie ku merati léegi pneu yi doo ci xalaat leneen du dul taal di nga ciy jël ko recycler ko jox ko une deuxième vie. transformé ko def ko ay meuble mo xam salon la mo xam ay pot de fleur la mo xam ay pouf la nga mën ko installer ci lieu public yi euh ci école yi ak fépp fu mën ti doon nga xam ni doonuñu ko dootuñu ko taalati di polluer li nga xam ni mom may euh, kii bi atmosphère bi benen bi su top tam mu ndelu ci euh, recyclage yi euh, monsieur Niass sank mo ko doon wax ñun ñi nga xam ni ñom ñoo ñu jitu ñom lañu jël tay di leen ko jagleel leen li nga xam ni mom may garab yi paréné ne leen ko parce que dañ koy for ci yenn yi oustaz bi ko wax dañ koy yonent bi sallallahu alayhi wa dañoo ñëwoon si moom mu ñu gis ñaari bàmmeel ñi leen ñuy mugal euh, ñu ne ko léegi bàmmeel yooyu pour nit ñi yàlla baal leen nan la ñuy def mu ne ko il faut nga saxalal leen garab boo leen saxalee garab dem ba nga xam ne garab yi màgg na am na ker ñu koy jëriñoo boobaa yàlla dina leen euh, baal li nga xam ne moom la leen di mugal mu mel ni que tamit euh, initiative bi rafet na trop ci ñi nga xam ni ñoom ñoo jiitu ñu pare na li nga xam ne moom mooy garab yi mais bu dul loolu sax li nga xam ni dalay jox oxygène garde gaz carbonique bi amaana mën nañ koo protéger moo gën ñu koy yàq te booy xool Sénégal dañoo miin ci lenn mbedd mbeddum buur la li may wax rek doo gis doo dox bay gis buur wala doomi buur di doxantu fi nga xam ne moom mooy mbedd bi kon fii Sénégal la ñun ñoo ko moom ñun ñoo ko war a mën a protéger ci lan euh, mali di nga xam ne moom la ñuy sànni ci mbedd bi ñu bàyyi ko parce que tey euh, woote nañ journée set setal partout au Sénégal tey nit ñi dañuy jël bu ñuy ramasser ba pare dañ koy jël jox ko UCG mu yóbbu ñu sànni fii gas suul taal mais tey initiative bi lan la mbalit yi nga xam ne dañ koo ramasser gasuñu ko suuluñu ko ñu ko mais dañ koo jël transformer ko jox ko une deuxième vie ñu wan ni que mbalit yi kat nekkul à chaque fois mën nga koo jël sànni mais mën nga kaa jël nga recycler waat ko joxaat ko beneen vie même bu li ngay jël sax di ko installé mën na nekk ci cadre entrepreneuriat parce que lii tey jii jarul xeeb boo eh, defaree say pneu ba pare mën nga koo yóbbuwaat ci tapisserie yi ñu defaatale ko uusal la ko ba boo ko defee sa biir salon wala sa biir bureau euh, koo waxul pneu la doo xam ne lii kat à base de pneu lañ ko defaree. Sénégal vert moo ngi parce que Sénégal vert la ñu wax kon cela veut dire au Sénégal dañ fay dem la première fois aussi ñu ñëw fi nga xam ne moom mooy Kaolack euh, yàgguñu fi dara école 3 si Saloum bii nii ñëwoon nañ fa amal fii lii nii muy euh, set setal lu mu tudd sax recyclage poulets yi euh, yàggul dara génn nañ Sénégal kii lu mu tudd sax Dakar dem nañ partout au Sénégal di fa def li nga xam ne moom mooy initiative yi di ci invité jeunesse beeg ñëpp ñu ñëw rejoindre parce que environnement dongoo ñu ñor protéger ko dong moom moo ñu ñor parce que tamit même bu dul dara am nañu président bi nga xam ne tamit ñor na ko trop.

ba ñu protéger ko ba tey mu bokk ci réew yi nga xam ni dañ koy tudd ci wàllum set ci wàllum protection de l'environnement ba képp kuy jël exemple ci yeneen réew yi Sénégal ngay ñëw euh, te di saluer initiative bu président bi mooy li may wax sànq ñu ñëw rejoindre ko ci euh, projet bi parce que tamit nekkul lu ndaw environnement nekkul lu ndaw parce que dañ koy xeeb mais tey jii boo jëloon garab bi ci àdduna bi wala bi ci Sénégal wala ci Kaolack yëpp nga dagg ko mën naa ne fii kenn dootu fi desati parce que ñun moom amal nañu njëriñ mais ñun mën nañ ne amaluñ ko njëriñ amaluñ ko ñëriñ parce que ñun faalé wuñ ko protéger wuñ ko xamuñu importance am mais n'empêche mom mo ngi fournir l'oxygène bi nga xam mom moy am même taw bi tamit moo ngi ñu koy xëccal euh, di leen inviter tamit ñu gën ko protéger gëna a alam bi wa ñu ngi gëreum baax initiative bi nga xam wa kaolak Kaolack vert jël nañ wa Sénégal vert jël nañ ko and ànd que euh, Cheikh Baye Mbaye mi nga xam mom lañu al kaolak ñun nak ñu ngi nekk ben club bo xam ñu ngi nekk fi ci Sam kaolak Mérina Baye ëmboo vraiment fi nga xamante ne mooy Sam Tabangoy ak Medina Baye ñu ngi tudd club des jeunes environnementalistes de Kaolack dox si wàllu environnement kon tax tax ñu mën a lëkkaloo waa Sénégal vert parce que sotti seeg def si la vraiment waaw niñ ko jàngatee ñun suñ jëm bopp dañoo jàppoon si journée set bi pour def set setal tombé moom tey mu def ko ñu bokk benn koñ bi ñu ne pourquoi pas mënuñu ko boole def parce que la ñaan mbooloo mooy doole li nga xam ne mooy njëriñ bi ombrage bi nga xam ne mu ngi la koy jox fruit yi nga xam ne mu ngi la koy jox te dafa bokk tamit si li xam mooy protection xam ne ñun doomu aadama kon ko war a sàmm ñun suñ a dox xam ne ñun mënuñoo dox leneen lu dul environnement moo tax ñu dox si wàllu environnement ak Baye Mbaye Baye tamit lëngu ak waa Sénégal bu nekk loo xam ne c'est nous dans vraiment macha allah bu ma demee dama ko jël jëmbat mm-hmm. damaa o spécialiste mm-hmm. mu jëmbatal ko muy càmm mu nga owoon moom laa oo fay ko mu jëmbatal ma ba mu baax mhm. ah léegi ma dem beneen spécialiste euh, Ali Ba mhm. mu jënd ay griver yi sampal ma ko ba mu baax mhm. montel di forme yi ba mu dëgër fi nekk nii karosol euh, gi mu ngi puus mu ngi génn macha allah ni mu mel neex na ma Euh, mangu gi tamit mu ngi génn tubaarkàlla kontaan na ci bu baakha ba president wax ne nagn ko jëmbat mom la sa president mom la wax ne nagn ko jëmbat waaw mom la am man jëmbat garabu mangu waye nak mom la nagn ci leneen mm, mangu mm. karasol bu yaab ak yeneen garab man mangu ak karasol mm-hmm. la wa mangu ak karasol la am ma sha allah wa ak flamboyant ñu ngi sant flamboyant bi nak mom mm-hmm. euh, sama bënd sa dañu tak ma taxaware na nako ko may ba ma may ko ko waaw waaye jëmba naa man sama yox man <laughs> yeneen ni mom jëmbat na ko ba mu baax mm-hmm. ma sha allah ñu ngi lay ñaanal yalla bu baax eh, ci weer wi nga xam ne mooy weeru gàmmo bii di sa sa weeru maam ndax nee na bu teroo dafay bég kon ñu ngi la ci ñaanal yàlla lépp lu ñu ci ñaanal yàlla na la yàlla na la jotale la ci yàlla musal la ci cat ak ndog